Cheikh Gueye Mangone euh, Cheikh Gueye Mangone ci ci Abidjan euh, dama Mangone Gueye moo fi toogaloon Sëñ fii ci Côte d'Ivoire euh, à partir des années 1940 ba 1946 ba 1992 bu mu wàccee liggéey ma mën a wax nag mooy murit yoonu murit mi ngi fi tàmbali dans les années quarante euh, ak seen Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma 1946 gàttal ko noonu rek euh, ci la sëñ Moutala ñëw ànd ak sëñ Cheikh Mbacké fii ci Côte d'Ivoire ànd ak yeneen i àndandoo maanaam ñoom euh, sëñ Moussa Faye ñoom El Hadj Yande Diop ak ñeneen i ñeneen bañ bañ a lim pour bañ a juum voilà mu ngoog daal quoi bon euh, ci la daayira bi taxaw waaw la ko gouverneur may ñetti loo fii voilà benn bi moom lañ dëkk fii ci avenue 4 rue Cesse fi mu dëkkoon mooy kër gi ngeen gis nii ak euh, daayira bi avenue 14 Euh, mu jébal ko sëñ Touba waaw euh, basam tamit maire Kouro Kouro Kouro Fall euh, bi mu wàccee liggéey 1977 la may kër basam bi sëñ Touba waaw Kouro Fall nag même maire la boo xam ne xamoon na Euh, dajoo nag sëriñ Touba bi mu doon bi mu fi nekkee basam euh, moo ko doon yóbbul ay kii ak yooyu ay xewal ak yooyu euh, fi ko tubaab yi dencoon fële ci Bassam ci li ma dégg rek waaw fekkewu ma nag waaw ci kaw loolu nag bon. organiser nañ fii ne ay ay màggalu Grand Bassam pour jéem a euh, xam nga nag sama wolof nag dafa <laughs> voilà ay ay euh, màggal Sëñ Touba rek waaw ci Bassam organiser na fi ñaari yoon en 2010 2011 màggalu Grand Bassam fii ci. ak ay conférence trois jours ak yooyu pour xamal sa mbokk ivoirien yi kuy Sëriñ Touba voilà ci la invité ñoom Assane Boub Jibi Jaxate après nu waata nu yeneen encore yeneen yeneen ak ñeneen conférencier ak yooyu pour xamal en français et en wolof parce que ñu bari luñ fi doon def yëpp ci wolof lañ ko doon tënk te loolu bon ça ne faisait pas avancer nag parce que ñu bari nag euh, bëgg na nañu xam Sëñ Touba nu fexe ba xam Sëñ Touba waaw xam nga sénégalais nag dañoo xaw a fermé nag boobu côté moom je le déplore quand même parce que euh, soo bëggee nit xam dara da ngay làkk loo xam ne ñëpp mën ko dégg waaw voilà dañuy organiser ay affaire fii mu nekk lu doy waar A bi wolof la Z bi wolof la ku ñëw ñaari fan ñëw ñetti waxtu doo doo ñëwati parce que finit par t'ennuyer ak yooyu yëpp nag bon ça finit par nag euh, créer ay situation yoo xam ne on à distance te jamono yi passé nous organise benn organise benn conférence internationale voilà internationale ak Assane Mboup daf ko ci YouTube c'était en direct biñ ci pare euh, conférence bi on l'a fait avec Assane Mboup et Galaye Ndiaye mooy imaamu Bruxelles ci pare dem seti euh, ci ñu ko organisé bi ñu ko organisé dañ ci boole euh, imam euh, Ayma Jaxate jakite fii luñ jax Jaxate la ñuy wax mais sénégalais Jaxate la ñuy wax waaw moom it bëggoon na ñëw seet si sëriñ bi ñaan invitation sëriñ bi accordé ko invitation bi nu fexe daal ba mu dem Touba seeti sëriñ bi. na ko bi nee na ak li mu fa gis yëpp euh, de on voyait le mouridisme ni mu ko waxee je cite on voyait le mouridisme de loin mais ñëw nañu ba gis teg seen bët xam ne tarixa la boo xam ne beneen dimension la voilà ànd ak euh, le on peut le dire encore le savoir le savoir la recherche du savoir de Cheikh Bamba loolu moom lu la neex la Euh, bi ñu ñëwee bi ñu fa demee tamit euh, ils sont partis avec le seen télévision Al waaw euh, ils sont restés quatre jours après ñu dem Dakar fële ca Colobane ci kër sëñ bi waaw soog a ñibbi bi nag ñu ñaan ñu naan sëñ kii Assane Boub bëggoon nañu mu ñëw jàppale leen fii ci. Al Bayane seen télévision bi Assane Mboup a fait un travail colossal voilà dugal nañ même sur le système IP et puis bon fexe daal lu mën a am ay audition foofu ci seen télévision bi pour mën a di ay message yu Cheikh Ahmed Bamba mais en 2011 bi ma organisé euh, Magalu Grand Ba 2010 2011 ma organisé ñaari yoon euh, conférence su Bassam Magalou, passage du Cheikh Ahmed Bamba à Grand Bassam. Euh, je me suis rendu compte que quand même, bon, euh, laajoon na euh, nu vraiment ay daara reprendre à zéro parce que conférence dana jële ñetti fan suñ fa pare ñëpp day fàtte il faut que nu am lox ay suuf quoi ma doon wër suuf yàlla mayu ma ko basam wërsëgal ma ko fële ca ca yaamu sëkkul am na ku ma fa euh, dénkoon liggéey euh, maanaam euh, sur cent huit hectares bon ma li defal ko lotissement bi mu am mu fay ma ci ay suuf ci laa dindi parce que cinq hectare et demi jébbal ko sëriñ bi wala dem seeti sëriñ bi pour nu mën fi def ay daara fi ci am sukro waaw ànd ak sëñ Modou Kara dem seeti sëñ bi sëñ bi rafetlu ko lool puisque vraiment kontaan ci lool defar naa plan yëpp euh, mu gis ko euh, waa COSIM tamit ñaan nañu sëñ bi nu mu délégué koo xam ne dana leen représenté parce que COSIM mooy euh, la conseil islamique des imams waaw donc pour man représenter sëñ bi fii ci COSIM seen institution islamique bi waaw parce que sëñ euh, imam Diakhaté imam euh, euh, imam Ousmane président COSIM bi ci ko loolu bokk na nag ci organisation bi nu bëgg a def ca Yamoussoukro jox na adhésion adhésion ci organisation voilà parce que dañ koy euh, ci tur bi tur bi ñu ci wéer a def mooy euh, fondation Cheikh Ahmed Bamba pour l'éducation et la formation moom la sëñ bi joxe ñu def ci fondation pour cinq cent filles cinq cent garçons euh, mu nekk espèce su pépinière ku fa jóge nag dem Touba ba ñu dem ci dëkku arab dem dem ba jàng foofu université bu bees boobu sëñ bi taxawal voilà voilà mille personnes lay démarrer cinq cent filles cinq internat lépp mel genre un peu Proxaan inspiration de Proxaan voilà mais deux écoles distinctes séparées voilà voilà yooyu yëpp seen mooy fondation bi institut Cheikh Bamba pour la formation et l'éducation sixième am recrutement à partir de la classe de de à partir le recrutement se fera euh, à partir de six ans six ans internat ak yooyu ay métier qualifiante dana ci bokk jàng ay métiers yu ndaw yoo xam ne ku yeggul fu nga war a yegg dinga nga mun a am loo liggéey kuy am ba dem ba bàkk nga mën a dem Sénégal Touba pour mën a continuer sey jàng ca université foofu voilà mu nekk plusieurs ci discipline bi ngay choisir yooyu yëpp ngi ci voilà ci loolu la sëñ bi bëggoon moom la sëñ bi bëgg voilà mu nekk espèce vraiment une pépinière voilà une pépinière euh, pour l'enseignement et la formation dana leen jàng français arabe ak euh, anglais ci loolu la nekk nii di defar kayit yi sëñ Mamour sax moom fi war a ñëw moom la sëñ bi désigné en attendant Mamour Mbacké sëñ Mamour mu sëñ falu waaw waaw bon ngi koy xaar war na fi ñëw ak ànd ak sëñ Modou Kara pour présenter gars présenter ko fii ak COSIM ñu mën a moom dem fii installé complètement dina fi installé nag voilà bokk ak euh, gars yi pour liggéey taxawal yoonu murit et puis jàppale leen tamit ci yu bari nag voilà loolu la waaw waaw. Mm-hmm. man fii laa juddoo 1951 euh, waaw 25 août 1951 waaw à l'état civil européen. <laughs> waaw waaw waaw parce que ñun sénégalais yi ñu bari ay français la ñu woon waaye ñi ngi quatre communes de Sénégal yi maanaam euh, Saint-Louis Rufisque ñu euh, Gorée ak Dakar ku fa bokkoon français nga yow te ñu bari ñu ngi jóge Saint-Louis suñu euh, mbokk yëpp Sénégal Saint-Louis la ñu jóge ñëw fii ndar waaw parce que ñun ñu ngi jóge Kébémer ah euh, maanaam euh, sunu cowaan cowaan maar waaw ñoom ñëpp cowaan maar la ñu juddoo sunu mbaay yëpp foofu la ñu jógee ñëw Saint-Louis dafa liggéey ay tëgg woon nag ay tëgg ay ñeeñoo comme on peut le dire voilà ñu bari nag bon euh, sama papa moom mi fi ñëw en général. Euh, autour de 1938 ak yooyu la fi ñëw moom waaw 1938 voilà la dajeeg sama yaay sama yaay moom bon euh, moom fii la juddoo wala non sénégalaise la sénégalaise la mi fi juddoo 1927 euh, sama maam Demba Thiam bi jur sama yaay moom mi fi ñëw dans les années 1890 ak yooyu ba Grand Bassam après Bengerville soo ko nekk Abidjan voilà wàcca wàcca liggéey fii fii la wàcce liggéey ak yooyu yëpp donc euh, loolu la nag tamit quoi c'est vraiment une histoire moom mu tudd moom moom moom moom moom jox turam waaw mm-hmm, mm-hmm. Euh, Abdou Lahad ñëw fii voilà 1958 la fi sëñ Abdou Lahad waaw kër gi moom euh, pratiquement doomu sëñ Touba sëtu sëtu sëñ Touba ñoom ñëpp jaar fii ci kër gi ba ci sëñ Mountakha mi waaw mu ngi fi woon Côte d'Ivoire sëñ Mountakha Mhm. maanaam kër gi euh, sama dafa diil dafa dafa def euh, kii troc waa daf am tëgg la woon moom am ay bijoux bëgg boobu bijoux ne ko mais mun nañ ko troc nga jox lay suuf nga jox ma kii wurus euh, bi noonu lañ ko na mun noonu la demee waaw muy ñetti kër muy fii ak avenue 14

parce que loolu tamit dafa am solo ku mel ni sëñ Touba dafa mat a xam dafa mat a xam te fii ñi fi nekkoon n'ont pas joué ce rôle là rôle boobu joué wuñu ko faut dire nettement ce qui se passe on est resté fermé fermé temps yi leenu commencé ubbeeku te loolu il fallait se jouer ce rôle-là te man mi fi juddoo xam leen j'avais mon rôle à jouer dedans te loolu laa def waaw voilà te loolu laa def voilà moom la moo tax Yamoussoukro jébal ko sëñ bi pour mu mën fa def ay taara waaw comme on peut le dire encore la la recherche de la connaissance loolu la sëñ tubaab bëggoon moom gën a siiwal mouridisme voilà voilà gën a mën a siiwal mouridisme il fallait le faire c'était très important très très important ouais. bon euh, maanaam euh, fi ñu toll nii wala euh, comprends pas très bien mon parcours oui oui man je suis opérateur économique opérateur économique euh, je genre commerçant voilà di liggéey ci transport euh, di immobilier et puis bon gis ay affaire jënd jaay voilà mu ngoog daal voilà loolu la voilà c'est une histoire comme ça voilà voilà sama soxna nag ivoirienne la moom fii la juddoo waa Bassam la waaw voilà ñoom waa Bassam la voilà ñuy wax abouré yi voilà moom par exemple maire bu Bassam la woon voilà wàcceel liggéey bu ñuy wax monsieur Ablé Frédéric moo dem bàyyam soxna Florence Ablé la tudd waaw waaw voilà ivoirien pur la waaw alhamdulilah Bon, ça fait près de 40 ans de mariage que nous sommes. Voilà, alhamdoulilah. xale yi bon maa ngi ñaari doom yoo xam ne Amadou Gueye ak Mongone voilà Amadou il est juriste et à Bordeaux voilà beneen doom boo xam ne bon dama orphelin la woon voilà mu jël ko yar ko def ko ingénieur aéronautique mu nga France a Bordeaux di liggéey Airbus. Mhm. voilà voilà voilà am kër fële ca Sénégal Anne Mariste waaw. waaw. waaw sëñ bi ni mu ko jàppee. Euh, dafa am solo euh, pour la bonne raison que musu fi am tarixa fii musuñu dem Sénégal ba gisal seen bopp bi ñu organisé fii conférence bi y avait près de cinq cent imams qu'on a invité jóge ci région Côte d'Ivoire yëpp pour ñëw découvrir Sëñ Touba waaw loolu amoon na solo bu baax ñu invité leen Sénégal ñu ñëw ba Touba gisal seen bopp dem Dakar seeti euh, euh, Makiou fay ca ku Jinaan buñ ko gisee seen lépp leer parce que ñun on nous prenait comme une sorte de secte pratiquement loolu moom daf ma mas a metti nag voilà waaw voilà voilà loolu moom lu métti la moom mu ne ah lii moom il faut que ñu change ko voilà li ci bo voilà voilà ak sama bi si euh, Alioune Thiam ñu fi toog ak ñeneen ñu euh, ñeneen ñeneen ñu organiser fii ay conférence

Euh, maanaam bu ñun daal ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi ñaan sëñ Touba mu rëdd su gën a dem kaw ci sa Côte d'Ivoire gi te yooyu yëpp ngi jaar ci ay jàngale ay ay daara il faut repartir à zéro ci loolu nekk nii waaw yi ñu ngi defar kayit yi ça prend un peu de temps mais c'est obligatoire. voilà suñ ci pare nag plan yëpp taxaw na waaw suñ ci pare nag bon danañ ko jébal financement daayira hmm? bi kañ moom ñu ci loxo sëñ bi ak daara ak taalibe yi avoir des plans B en cas de difficulté sëñ Tuubaa rek waaw sëñ na lépp man ba léegi sax affaire mu man daf ma jaaxal waaw affaire bi daf ma jaaxal ba léegi waaw nga xam ne sëñ Tuubaa moom mu ko dugg moom mu ko sës voilà waay sëñ moom mu ko sës pour mu mën ko def waaw cinq hectares et demi la cinquante cinq mille mètres carrés capital administratif Yamoussoukro village de Oufourbagni bi ñuy wax Kami waaw waaw plan yi sax bi mu ko doon def benn julliti ivoirien moo ma defar plan yëpp dërëm laal mu ko mu ne ko sëñ moom dafa fonk sëñ Tuubaa waaw waaw hmm. mooy film yooyu ngeen gis plan yaa ngi fi tamit waaw ngoog daal su bi ñu ngi xaar lancement bi ñu ci loxo sëñ mu taxa waaw su ci paree moom mooy def lépp lancé ko jullit yëpp ku ci mu a dugal sa dërëm pour affaire bi gën a dem kaw alhamdulillah waaw mais lu wóor moom dana taxaw moom dana taxaw par mille façons dana taxaw moom kooku moom wóor na mu yàlla moom waaye waaye waaw sëñ Tuba amul morom moom kenn la du ñaar mhm. Mhm. Mhm. ci ko loolu maa ngi di sant bu baax voilà ci déplacement bi ngeen def voilà yàlla na seen yàlla Tuba fay seen baaxaay ak seen liggéey sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér